dikkati na la xew ca Touba doy na waar ba jéggi dayo turbine yéen kaay naan man ndox kay la daal di fees ñaar ci ay bakkan rot ca fanweer ci ay kër ndox ma moomal leen bopp yéen kaay de média bi naan man ñaabar ñaabaril ba gaar bu mag dem ca kër ñang ca Gédé ca Ndaamaatu askan wa ñoo bàyyi seeni kër laa la wax génn ka ndox maa leen ca ëpp sañ-sañ moom maire bu Touba Abdou Lahad Ka xam leen ni fii mbir yi tollu daar daar tële na daal indi saafara yi nga xam ne moo war ci jafe yi waa Touba di dund fi mu ne bugaan gay dani naan autorité yi leen lu ngeen man def leen seen kéemtalaay kàttan dawal leen yërmande xol bu laab waaye daal secourir leen askanuk Touba jàppale leen victime yi nga xam ne ñoo daal di loru ci mbënd mi plan Orsec moom amagul daar daar yéen kaay bee koy xamle ministre de l'hydraulique it ma nga fa woon xamle ni ay moto pomp dana fa xam le ni it moto pompe yooyee dégâts yi lay daal di gérer Walf Quotidien naan kon fi mu ne day njàqare akuk tiis moom la askanuk Touba nekkee ci mbënd moo xam ne ma nga fay jur lu mittiwaay Les Échos yéen na caaroon ay quartier fees dell ki ndox askan wa jaxle ba mar day taali ay kër daanu fa ay téeméeri téeméeri kër ñu abandonné leen la war jumaa ja fees dell ki ndox sapeur pompier yu Thiès ak Jurbel moom la ñu mujjee mobiliser ngi ñu ñëw jàppale askan wa vox populi naan kon ca mbënn ma ca Touba gannaaw ñaari bakkan ya juróom ñaar ñoom am ay gaañu gaañu ci loolee daal dina cay tukkee téeméer ak ñeen fukk ci ay millimètre moo daal di wàcc ni ki démb ca Touba ay téeméeri téeméeri kër mani la ndox nangu leen askan wa nag daal di nekk ci njàqare soirée goo xam ni mar day taali demal ndaamaatu demal kër ñang demal Touba mosquée demal guy mbind demal sura demal daaru marnaan wala it nga dem ba Mbàkke situation ba ma ni la na mu compliqué sax doy na waar ba ci peggub grande mosquée ma ni la moom porte parole bu xalif bi xam le ni bari na ci kilifa yoo xam ne foofee seeni kër ndox ma dugg na fa te yàgg naa alerte ci lu ni mel l'observateur naan kon daanaka tiitaange mang ca bëtu ñu bari wul moom ministre bi Cheikh Tidiane Dièye jël nay engagement def ko ci kanamu Serigne Mountakha média bi naan man diggante Kaolack ak Kolda foofu it bari na ci quartier yoo xam ne fi mu ne ña nga fees dell ki ndox Dakar Times naan kon yàggul dara ma ni la gaal suux na fi xol yi mitti tey jii nag mbënn ba nga xam ne moo am ca Touba daanaka daal moo tàngal xol yi laas naan kon en tout cas dégâts yi bari na gannaaw ñaari bakkan yoo xam ne rot na l'enquête quotidien naan kon budget boo xam ne ci tension la ne lii it jar naa wax tribune yéen kaay naan kon primature lekk gum na fukki milliards ak ñaar présidence fanweeri milliards ak ñeent l'enquête naan fiscale yi moom yokku na ci weeru njëkk ci 2024 recette non fiscale yi ci boppam ñoo daal di wàcc wàccug yooye yooyee yemoog dépense ak subvention bu énergie bi daal di yokku fayu intérêt yi daal di diis gann ci budget bi Sénégal fas yéene dénk boppam impôt yi Sud Quotidien naan kon déet la nga xam ni it ña ngi koy fuqar ñee ca ña àddu kalpe woon sunu yëf Sud naan kon machine bi moom tàmbali na traak ba fas yéene ànd ak moom tàmbali ci réew mi ministre de la justice maître Ousmane Diagne niki démb daal di taxawal pôle judiciaire financier bi nekk ci réew mi ñaar fukki juge ak juróom-ñaar ñoo ko tënk fas yéene ñaabar ñaabare ak ñun foqarti kay la nga xam ne jëloon nañ ko muy suñu moomeel vox populi naan kon en tout cas moom ministre ba ma nga naan la ngeen bëgg ci résultat daa ngeen ko ca am fa yàllaahu procureur général ba Mbàkke Fall naan du règlement de compte reddition des comptes la nekkul ña nga xam ne nag dañuy fayantoog ñoom waaye ña jël lañ naan dellu si leen maître Ali Fall bato ñee naan traak ba tàmbali na yërmande du ci am te du yombi ko juróom-ñaar ci magistrat la ñu dénk mbir yi le soleil naan kon ministre de la justice ma naan bëgg-bëgg askan wi ci ñu delloo leen seenuk alal loolee la ñuy matale les fa yéene kaay naan kon moo taxit armé na ñaar fukk ak juróom-ñaar ci magistrat te naan leen na rang yi jub ku jëloon na dillu si lu ko mooy yoon ci kawam bés le jour naan leen accusé ci sañ coow laa bu ñuy di gàmm ñuy di ras dem tur bi yéene naan man la bëgg ca assemblée nationale mooy majorité boo xam ne nguur gi da koy am yéen kaay bi naan maan bëgg-bëgg googee day woote ab continuité wala ab rupture ci réew mi l'observateur naan kon coow laa nga ca yooyu le législative kay ña ngi ko jàpp fukki fanak juróom ñaar ci weer wii fi mu toll nii nag dégg ñu ne dàq nañ ko wala tàbbal nañ ko géej bu mu bett kenn ndax nag dat wa ca boppam ma nga tàmbalee di biiju ñaar ci décret yoo xam ne waroon nañ ko xaatim France daal di xidéem kenn gisu leen am nag retard calendrier ba daal ba maar day taali njëga si laaj bés bi le jour naan leen dara jëf yi nga xam ne war naa taxawal préparation législative am nan ca nag ab retaaru juróomi fan laas naan maan réew mi ci boppam moo lëj te naqaree lijjanti ca ISRA ay ordinateur yu DG ba bu secretaire général ba ak bu directeur scientifique ba ci boppam lan ne doon daal di yóbbu sàcc kay les ko naan kon Ibra Ali si daq nañ ko Mamadou Fall léegi mooy directeur général bu CGIS wuutu fa Ibra Ali gannaaw ñetti weer yoo xam ni képp lañ ko fa jooytu nu pigunu fanweer ci ay candidat naroon nañ dem màngaani gendarmerie ci boppam moo leen ko teree def waxtu woowu gis nañ ni junni ak juróom-ñaari téeméer ci ay mineurs yoo xam ne recensé nañ leen te ñu nekk ca île Canaries jamono ji ay sénégalais lañu libération naan kon ca Joal daal dinañ fay déjoué gaal gu doon dem ñaari soxna ak ñaar ci ay bébé bokkoon nan ca ñu doon dem mangaani yéeni bi naan maan bul dem douane nit mi ngi def lu am solo ci port autonome bu am na ku doon jaar ci Rosso bëggoon rëcc génn réew mi jàpp nañ ko ko ci baat ñetti milliards mu jébbal ko douane ñett ci ay transitaire ci wàllu luubal jamono ji ñang ca kaso ba bés bi naan kon ak lu mën a am rapport yi moom na ci réew mi ndax nag gene mi mi dafa nar am ci réewum Sénégal rapport bu conseil économique social ak environnemental ñi ngi koy xaar Birahim Seck yàggul dara ma nga naan kon président bul protéger kenn bàyyil yoon def liggéeyam te boo mooy tuul nag mi Touré doon gene ci lii deux minutes pour lire l'essentiel naan kon en tout cas waa APR moom tey la leen desewoon teg ci nguur gi soo moytul nag président Diomaye dina ko foqat ci fayal laaxu ña ca desoon lay daal di raatale dàq tàmbalee nag doxal à cent pour cent ak i gaayam l'enquête naan man ak lu mën a am jàppaleen nii ñaar ci attaque am na ca Bamako ñu dippee kon nag ay attaque terroriste yéeni kaay bi naan maan tension ah. Sud Quotidien naan kon ab camp d'entraînement militaire ca Bamako la ñu attaqué Les ko naan kon waxtu woowu la ñu gaynde yi di jar ci match bu nekk nii la caution benn million dees na ko bàyyi ca stade ba luwee ko fanweeri million ak juróom moom stade maître Abdoulaye Wade ak ñett dees na ko def ci sécurité ba ministère de sports di fayit juróom ñaar fukki million ak juróom hôtel Radisson bu jam ñaajo match bu ne diggante organisation regroupement ak entraînement daanaka millions yu sakkan loola la gaynde di yóbbu tribune naan maan ak lu mën a am waxal ci Oumy Diouf mi nga xam ne mi ngi doxal tourisme ca Fatick l'observateur naan kon nga wax it ci soxna yi nga xam ne daanaka jeu hasard yi muy naar beeg yeneen yi mu méngool moom la ñu nekkee ci réew mi soxna si nee na man tëdd naa sax kaso ndax xaalisu tontine bi laa dem foyee ko lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te ndoog jàmm